maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm askanu Sénégal yëpp particulièrement notre chère région Thiès Baye maa wax na ko ñun Sénégal la ñu am li ñuy def lépp bëre kese bëre bi ndam li génnul Sénégal ki koy gañee Sénégal lay toog Sénégal lay defar te Sénégal la ko ñor moo tax mu yëkkati loxo di xëccoo kon nag ku ci nekk tànn sa mbër ku ne sa mbër mooy daan waaye ñun yàlla dafa def fii ñu taxaw ci Thiès nekk fekk askanu Thiès li liggéey ak ñoom lenn ñoruñu lu dul dëkk bi waaye ba ñu ànd ak waa liggéey ñuy dem ci joŋante yoo xamante ni mën naa ne deux vingt deux ngeen ma dégg ci élection deux mille vingt deux biñ ma ci dégg dafa tombé rek mu suñu borom def tey ci coalition bii ma bokk muy passif bi yaakaar naa ne élection locale yi ci laa waroon a bokk. mais yàlla def na sama frère sama xarit Diagne bokkoon ci jogante boobu mënu yaakaar naa fii ma taxaw di wax fii laa taxawoon ma nag moom alaaj daam saako fekk ma fi ñoom jobo saw man leen Ousmane Diagne dinaa ko def maire te yàlla def na maire kon jaam pexeem bur yàlla la muy dogal waaye bu yàlla defoon démb li nga xamante ni am na ñu ko doon mëbët tey heure bi fekkoon na ba bokk ci maire yi ñu li mais su moo ko doxalee noonu ma ànd ak président Thierno Alassane ñu dem man ak moom kese ci coalition suñu borom dimbali ñu ak li xewoon ci élection locale yi ñu doon xëccoog parti au pouvoir di doon xëccoog coalition Yewwi ñëpp xam coalition Yewwi force bi mu amoon ñëpp xam benn Bokk Yaakaar force bi mu amoon sama papa maa barki dem dafa waxoon ba ne ma seen résultat daf maa bet xalaatu moon ni yaag Thierno Alassane mën ngeen a gagné école Malick Kéré bay jël deuxième suñu borom def ñu ànd jël deuxième sur deux cent voix yoo xam ne moom la ñu yeewi rawee parti au pouvoir bi fi nekkoon ñoo ko rawoon bi ñu demee suñu borom def demal boppam parce que nit ku ne ak na mu toll waaye man ba may ànd ak moom dama man kese ak yéen ñi taxaw fii ku ci nekk la ma def ba am la nga def ko ba indi sa moroom ba ñu mën ba suñu borom defal ñu résultat ñu am. dem toog ci ay plateau boppam ñu invité ko mu waxtaan ci ñu koy laaj ndax am nga yoon ci li nga doon def nag cee amoon rek ku la doon jàppale mu ni kenn mësu ko tee jàpp kenn du ma dégg ma wax ndax ni ma mel ak rakkam yàlla def ñu demante ci yeneen élection yi six mois après moom mi jëloon deuxième jël septième. ki nga xamante ni laa ñu yëkkati woon moom yëkkati ko gañe ko ndax ba may dem ak moom nag dafa am lu ma ko wax dama ne ko bu dee école Malick Kéré bii moo la war a tax nekk maire de ville de Thiès demal nga wuti leneen tax tëdd na la am dinaa ko jël teg ko ci laa ko jël teg ko ci loxoom loxo président Idriss Seck vingt-deux ans dara kenn mësu koo gañe bi suñu borom defee ma dellu si toog yàpp sama ñaar daf may définir pour ma mën a nekk candidat aux élections présidentielles te man aw ma lu dul kees soo ma seetaanee ba ma ñàkkat sama bureau de trois bureau trois ak le centre vote de Malick ci législatif yi kon man mënutuma nekk candidat aux élections présidentielles yaa Serigne Babacar Sy man ngeen lu ne ma ne ko barke Serigne Babacar Sy dinaa la ko delloo kere biñ ci man ak yéen ak ki nga xam ne ginnaaw yàlla yonent bi samay waajur moo gën ci man muy Serigne Babacar si ñëw àndaat njëkkati lépp teg ko ci loxoom 10 heures ci suba la ma woo ne ma jeune parrain école Malick Kéré maa ngi dem añi du ma ma xaar sa ndëkki damay añ parce que xam naa ne école Malick Kéré nooy na nepp te kenn nooyee lu ko du yéen ni mbooloo mi fi taxaw. ñu demaat ci yeneen élection mu yii du ma wax yi sax dinaa jàtt présidentielle yi parce que présidentielle yi passé kenn dégguma ci man ku ma xam-xam ne détermination laay demee lu ne dañ ko wax. mais xam nga ni man ku ma dégg ma dakk dara bul xarat ma am ci gàtt waaye keroog ba élection présidentielle jubee ñaari fan ba ñett fan lañ ma ci dégg mais man su may campagne détermination lay demee li ma am li ma moom laay génne jubal ko ci ki wutal pour mu am ndam ndax ëllëg ma bañ a sëgg ci kanam ndax li ma ko wax su borom dimbali ñu ñu jëm ci lii ñu jëm muy élection législative ma ànd ak samay rak waa Thiès samay yaay samay tante samay papa génne li ma am ak seeni doole ak seen wërsëg ñu boole ko mobiliser suñuy oto daf suñuy dàll takk suñuy yële taxaw ne dañuy jàppale le président Ousmane Sonko. jàppale le président Ousmane Sonko mais pour faciliter la tâche au président Bassirou Diomaye Faye pour que mu mën a gouverner la Sénégal. biñ koy dafit ñu waxtaan ci ak suñuy xarit que je précise son nom nommément muy Yankoba Sall ki mu boole ma ak le directeur général du port autonome Waly Bodian Diouf bi nga xamante moom moom ak bokk liggéey bi ak moom ak la président Ousmane Sonko pour le 17 du soir ñu mën a indi résultat yi xam ne école Malick Kéré lay génnee fii nag laa taxawoon dama ne woon buñ ma ci déggee buñ ma ci déggee sëriñ bi moom ak ñi may àndal leen rek laa xam te leen rek laay wax ñetti élection jaar na ñaar yëpp bi ma ci bokkee takk ci lépp xam na damaa jël ndam bi ci des bokk ma ci yeewi am na ci ndam moo wax ni yeewi amu fi ndam waaye bii paa yeewi dinay doogo tey lay doogo xam ne am na fi ndam élection yii di ñëw le 17 du soir du neexee yàlla yonent bi barki Serigne Babacar Sy balaa midi ñu tàggoo gaay ci école ñëwuñu fi nag parce que nag bu ñu doogee naan dañuy xaar un plus un égale deux dañuy xam ni am nañ am dañuy am yaakaar école bi neuf bureau de vote la dama ne bu ñu nee numéro un passif numéro deux passif numéro trois passif numéro quatre passif numéro cinq passif numéro six passif numéro sept passif numéro huit passif numéro neuf Ousmane Sonko kon yaakaar naa ni boobu dootuñu fi xaar ay résultats sant mais dañuy dem ñibbi bàyyi ñi nga xamante ne dañuy xool li ñu for ñu dem ko def seen poche yóbbaale ko waaye un ba neuf huit yi passif la neuf yi le président Ousmane Sonko le sant de vote ñu remettre ko au président Bassirou Diomaye fay kon maa ngi félicité ñëpp di ñaanal ñëpp di jox rendez-vous incha allah le 17 incha allah yéen ko gis de man dama am fit musuma dem campagne musuma dem campagne campagne bi jeex ma teggi sama sonorisation sonorisation baa ngi nii le à 17 heures nañ leen tasewaat fii def caravane pour Thiès yëpp pour la victoire éclatante du président Ousmane Sonko jërëjëf. asalaamaaleykum ñetti yoon man Abdoulaye Maw Fall. maa leen di nuyu di leen baalu ak di leen wax sama taxawaay fii tey ñett moo ko indi benn bi yàlla def na ci suñu loxo ci la jomaay jaxaar fay jaare ba nekk candidat ñun ñii ñoo ko investir concepteur de la coalition jomaay président ñun la kon tey bu ñëwee toog fii ñu am suñu candidat muy président Ousmane Sonko notre tête ça nous fait que réconforter ñun nag yàgg nañu def politique xam nañu li may ñaan tey ñëpp xam na ne tey am lu ñu ñor mooy Habib ñi ngi lay sant di la gërëm l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle ndax tey li xew bari nañ ñu def politique fii ci Thiès ak feneen te mënuñu ko Habib fii say mbokk rek ñoo fi ne say mbokk say xarit say àndandoo tey yaakaar naa ni buunga dina dellu ca boy boy ba la def vous tawee mi nootul ami notre cher ami Idriss Seck l'homme que nous adorons bien vous l'avez mis en retraite votre frère aussi Thierno Alassane Tall vous l'avez yaa ko def li ko def tey jii ba tey mu dem kon tey Habib dañ laa tendre loxo ni la ñëwal ànd ak ñun ndax projet la ñu am ñu gëm ni ak li ñu gis tey fii moom pare na nooyu na ba pare gëm naa ni fii nga daan gañee di ko continuer di ko gañee di nga continuer ko gañee li ma lay xamal nag li ma lay xamal mooy ñëpp Cees waa bu ne xam ne sa engagement ñun ànduñu woon ci politique waaye dañ laa mus a respecté parce que suñu doom nga te gëm nañu nii homme de développement nga homme de homme de cœur nga sa xol bi dafa rafet kon lii fi nekk tey ku mën a woote ci Cees dina ko génnee bay ci sa wowu tànk te ca commande nga commencé ñu gëm ni tey lii balaa trois heures du matin jomaay jaxaar fay dina ko jot matériel comme jomaay maxaar dina ko jot lu ñu wóor la te na nañu wóor na yàlla ni euh, suñ nootu tête tête de liste dina ko jot li ma lay xamal ni la ma présence ici du hasard ndax xam nga ma xam xam nga fa ñu toll xam nañu tolloo ak ñooñu te ñun bokkuñu ci siis ñi bokk ñuy def politique naan du ma ànd ak diw ak du ma ànd ak ma sàmba ak ma demba fii ay homme de rek ñoo fi am ñu diiñ rek ñoo fi nekk Sénégal dong moo fi nekk amul sàmba amul demba dañ la woo tàllal loxo wuy si nga ñu vraiment je suis réconforté vous êtes un homme que j'adore bien que protège en tout cas j'ai le droit de crier pour vous que le Tout-Puissant soit votre sentinelle en tout le temps en tous les et en toutes